tekk nii ñu ngi ci biir Colobane fii ko ko gis xam ne mooy maquette Colobane ñu xool maintenant nan la ko ñun ñi gisee mesures yu bees yi nga xam ne moom la état bi war a jël muy état d'urgence bi ak feebar bi ñu dem topp leen ñu ñu xool. tey ñu ngi ci lancé bi ñu ngi ci ñu ngi ci biir Colobane maa ngi toog ak benn sama benn waay mécanicien la déjà ñoom aussi bokk nañ ci ñi nga xam ne war nañu wax. salaamaaleykum sëñ bi na def. waaye salaam grand ñu ngi ziar wér-wér Ibou Fass la. dëkk Colobane waaw di médecin quoi. Euh, di mbër teg ci. waaw noo feebar bi ak yi nga ne moom la war a jël fan moom la jël tey. waaw feebar moom exactement bi muy soog a commencé ci li ma xalaat man xalaat bu gàtt dama dem ba gëmatul leen cent pour cent moo tax lii tey ñëwaat nii suñ ci mel ni ñu war a mel xañ na du demee nii parce que di ci ay version yu ne te nit ñi buñ la gëmatul pour nga wax leen lu gëm moo andi lii nii mis bi nag c'est logique. man côté lamb la lay waxee suma ma sañoon ñu bàyyi lépp ba mbas mi jeex ñu commencé waat reprise nekkaat suñu activité ci mëna doon mais luma na am état bi na xamné nak réew mi soxal nañ trop son nañ suuxa nañu warna xol bu baax li ñuy wax bu féké né dëgg la ci ñom jël ci mesures barrière yi ak normes yu normal bu féké né li ñuy wax wóor ay caaxaan parce que min nak ku jiite réew ëllëg da laa jëmal xëy am non sàmm sa réew te ñi son nañ trop nak loolu daal xam naa ko ci feer bi. ci biir garage Colobane ma toog ma taxaw ak koo xam ne responsable yi ci responsable yi la bokk responsable chauffeur yi papa ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. Euh, tur bi naka la. Euh, Mamadou Lamine Ndiaye. Euh, papa Lamine fan yi dégg nga feebar bi nu mu lëmbee dëkk bi taux bi gën na yokku moor yee ñu yokk dèjà lan nga mën a wax ci loolu. waa loolu moom jaaxal nanu ba fi mu toll nun ñii sax ah noo ngi ñu jëm sunu fit yi dalut. ndax lo xamni ni xamul fu mu ah ken xamul noo koy moytoo moo nu xaw a euh, ba nga xamantene nak waxtan te nit ñi ñu jema xam parce que xam-xam nekul fenn fu dul ci doom aadama man nañ ko baña xam mais am nañ ko xam am nañ ko ño xam ne nañ la wax noo koy dañ ca eggul li nak dina tax lolu feñ ah deug yalla sonal nañu lolu ndax déclaration président dégg nañ ko jaaxle moo tax mu mu dunu moytuloo ak a xalaat loo waaw a wax dëgg yàlla ni mu def nii li muy wax nii ñu di ko dégg ñun xam nañ ni bëgg réewam moo tax mu di ko wax ak it bëgg doomu aadama ndax noon naa toog fu mu toog rek dara du ko jot a mu bànn nu dem waaye nag dafa solo dàllam solo ay dal waaw. waaw yeng nañ ko mom yeng nañ ko mom yeng nañ ko waaw. nan ngeen gisee mesure yi ak seen liggey ah ma mesure mom wala yalla mom mom mom febar bi mom mo ki mom c'est normal mom do mom ñu ko way nak ñu tam xam nga ñun am nga ñun ay 4 h du matin lañu juk di xey ay bu nee 6 6 heures la ñuy lañu a la ñu suñu liggey dana tardé dana tardé way nak non la yalla dogal ndogal suñu borom la nañ ko dañ ko nangu rek. gis ngeen ne da ngeen am problème par rapport mesure pour l'instant. parce que bu ngeen bëggee génne 4 heures te 6 heures la ni di commencé day nekk problème. waaw problème la moom problème la moom xam nañ loolu waaye nag nañ euh, moo waral loolu ñëpp suñ suñu wér lañu lañu lañu lañu lañu ñu ñu def ko rek moo dañ koy nangu rek dañ koy nangu rek. nga xam ne dafa lëmbee ak mesure barrière yi nan ngeen koy dundee ci biir oto yi. mesure barrière moom wax dëgg yàlla dañuy sonn dañuy ñëw client yi sax dañuy ñëw naan leen client yi aj leen seen masque yi. aj leen euh, euh, auto police baa nga ne aj leen seen masque ci dara receveur ñu faale mais police bi taxaw ne nga leen leen nga police baa nga ne yëgal leen seen masque yi bu ko yëgut da leen wàcce ñu doog ñu soog a nangoo yëgal seen masque yi bu oto bi génnee garage bi ba ba gisee police dañuy wàcce waat waaw. bon ñooñu moom bon en fait euh, du du yomb nit ki moom lu mu ne gëmu ko moom bu xoolee jant ba mu neex mi nga gis ma jant bi kooku moo dina difficile pour nga ko jant ngi nii mais en fait affaire bi am la nit ki moom man dama nit ki bu fekkente ne da nga ne man gisuma ku ko am gisuma ku gis ko ko am loolu tax dama gëm dama ne bu dee loolu yàlla bu leen ko gaaw a gëm da bu dee gis ku ko am donc mooy tax nga gëm ko yàlla boo gaaw gis ku ko am waaw en fait mais en fait affaire bi lu am la réalité la am na surtout ñun ñoo xam ne ay jeunes nañ. il faut ñuy sóoraale les personnes âgées ñu nekk si kër ga waaye mais bu ñuy jeunes yi ñooy génn di liggéey ba pare gëmuñu affaire bi ñooy indil ko mag bu ko regee catastrophe lay nekk mais feebar bi am am na bu baax a baax ça existe ci feebar bi ci moytu bi mu ko bi ñu wax nii ginnaaw dañ ne mesure mesure ak téye sa tànk di moytu mbooloo ah loolu bu nu ko waxee nan ko def ba ndax xalaat na ne loolu moom bu ko defee bu nu ko defee dinañ ci mucc a ah, ñu def la ko ko rek waaw luñ na ne boo ko boo ko moytoo mucc ah kala koy wax ah yow la àndal waaw. Euh, état bi yëg nga dafay waaj a def jël ay mesures bees tey ci jeudi bi muy état d'urgence wala couvre-feu déjà yéen chauffeur ban lan ngeen ci yaakaar ak yan gàllankoor nga yaakaar dina ko def ci seen liggéey. voilà yaa ngi doog a ñëw foofu nag ndax gàllankoor bi moom dana am ndax. bu fekkee yàlla doo dogal man mi nga xamante ni Thiès lay xëyee di ñëw Dakar di fi liggéey si di wàcce dakaar di ñibbi Thiès ah suñ ma nee heure sàngam bul doxati fekk nag yàlla dogal ma taal sama oto wala ma dugg oto di dem ba egg jam ñaajo neuf heures jot léegi xalaat boobu laay xalaat nan laay def waaye du beneen xalaat waaw xalaat boobu nan laay def parce que du ma mën a tee dem Thiès du ma mën a tee ñëw Dakar waaw léegi nag foofa ak jaaxle dafay daal di am waaw loolu loolu ba tey jar naa bàyyi xel ci loolu waaw maanaam kay bu fekkoon ni dañu bu 9 jotee bu benn bu benn auto départ fii ah embouteillage bi mën laa bañ a téye ah diggante fii cees moom mënoo ko daw une heure de temps ci oto yi da ngay daal dawal ñibbi dawal xëy si dem. waaw metti na lool metti na lool waaw loolu daal laa ci amoon lu ma ciy wax te tamit ah di diglu ndigalul docteur yi rek ndax docteur bi nga xam ne saa yoo sa tànk méttee ba jaaxal la dañuy daal di wax ne yóbbu leen ko hôpital bu waxee da ngay reconnaître lam la wax rek te xam ne dëgg la loolu daal laa amoon lu ma ciy wax.